سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لمن فرع الهدى من أصله إحسانه ومنه والفضل ثم صلاته على من أصل وأجمع الدين ومنه فصل ومهد الخوائد الصرعية لرص ما يبنى منه الفرعية وكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñoo ngi nuyu kilifa yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci jataay bi yëpp kàddu kàddu Serigne Ibrahima Kunta ginnaaw bi mu nuyoo mbooloo bi yépp waaye nuyu waa tànt bi yépp jiital ci nuyoo bi ay baayam yi nga xamante ni ñoo jógee ndànk jógee sanc buuna jógee guyat ñëw ci palaas bu tedd bii ay ndijaayam ñii di ay magam ñii di ay rakkam ñii di ay tantam ñii de ay yaayam sax ci jataay bi nee na moo ngi nuyu ñëpp di leen ziyaara di rafetlu jataay bi bu baax a baax a baax ndax li waral kàddu yi mooy da cee am cër ndax mbir mi mënoon na nekk benn kàddu rek ndax sëriñ Aliou bu waxee rek ci kàddu gu waa ndànk wax ci bisib maam Cheikh bu naama bii doyoon na sëkk waaye arab li ñuy wax ni wasul xaqi laa tanxusan xaqahu fa inna al xatiata min naqsihi moo waral kàddu yooyu di jub ginnaaw bi mu nuyoo di jaajëfal ki nga xamante ni moom mooy amaat ndax Amar dafa jël bis bi boole ci ñi nga xamante ni ñoom la ko duppee muy Serigne Ibrahim Kunta loolu nag nekk loo xamante ni lu rëy la ci moom ndax gis na ni ñëpp gis na Kunta yëpp gis na adduna bi yëpp ni mu ni mu yaatoo mu jël ci ki nga xamante ni mooy Serigne Ibrahima ak jëmmam ci mu duppee ko bis bi kon defe naa ni loolu ak mbégte ak sant goo xamante ni am na fu muy tàmbalee mais amul fu muy yam euh, di sant ñi nga xamante ni ay rakkam la mu ànd ak ñoom ku ci mel ni Serigne Ibrahima Serigne Abdou Karim ak sëñ ak ñi nga xamante ni délégation boobu la àndal ñépp ndax bis bi moo moo doy noonu man nañuy wax ni benn délégation bi benn la maqsad bi benn la raaya bi benn la waaye istisna bi moo am solo maanaam liñ ci génne ki nga xamante ni mooy ibu daal ko koy Serigne Ibrahima daal ko koy duppe moo waral loolu kon ñoo ngi sant mbooloo mi yépp di leen bu baax a baax ni maanaam ndénkaane lay joxe ndax bis bi li ñuy wax ni dafa alaa daw me dafa alaa ndax suñu maam Cheikh Abina Amatal Kunti la ñu tuddee bis bi te Cheikh Bounama ku ko xam nga xam ni lenn loo xamante ni nekk na kunta fii ci Sénégal doyooni moom ndax kunta moo demee noonu gis nga ahmadul kum lay ni bi muy ziyaare maam Cheikh Abina Amatal kunti ah, bi mu nuyoo ah, ba egg ci benn xasida bi muy wax ni man kaana minkum xayyun fa sayxu zamanihi wa man kaana minkum mayitun fa laysa lahu mislu loolu lu am solo la nee nit ku ci nekk di dund yaaraw ñëpp waaye képp ku ci génn àdduna rek fa lay selohu mislu kenn du mel ni yow moo tax dañuy wax ne ci abina amatul kunti yu amul kunta bu nekk ci Sénégal mel ni moom ak njabootam kenn mënu ko cee dam parce que boo ñëwee sax ci wàllu njàngu àdduna di njàngum tubaab ñi ciy am garaat dafa am benn hiérarchie bu ñuy bu ñuy bu ñuy toppalante moo tax noonu tamit la cheikh cheikh Bounama mel ci cheikh sidil muxtaarul kunti moo tax ñu demoon ba su ñu waxee al muxtaar borom xam-xam bi ni cheikh sidil muxtaarul kunti yi lañ ci jublu moo tax Cheikh Bounama tamit liggéey bi mu liggéey fii ci biir Sénégal ba yar njaboot bu mel ni ñi mu fi yaroon ba kenn ku nekk sanc ab dëkk damay wax ni nit kooku noonu ak jëmm jooju noonu fa laysa lahu mislu am lu ñu màkke loolu sëñ bi waxoon ni dafa am solo nit ñi di ko fàttaliku nit ñi dañ koy wax nag ci tànt yi lu bëri ni Cheikh Bounama bi muy nekk xale jeune adduna di ko soxla lépp di ko soxla ci adduna ci la bàyyi léppam daa di lan dëgmal àllaaxira ad daawatu ila llahi wa naslu as saqafatu al islamia loolu moo ko taxoon a jóg maanaam symbole bi moo ko jëlee ci Seex Sidil Moxtaarul Kunti ndax kunta lépp tarbiya moo tax Seex Sidil Kunti moo ko tarbiya mu am 18 ans ñëw ci dëkk boo xamante ni dañ koy waxtaane man ak sëñ Ibrahima lu bëri dëkk boo xamante ni maanaam déggul seen làng amu fa papa amu fa yaay amu fay bàjjan amu fa tànta yow foo nekk famille bu mel nii ñu mel ni Amath dafa mel ni dafa li Serigne Touba doon wax naan asiru ma al abraari xiina asiru dafa mel ni dafa topp ci ci ndëggu ci abina amatul kunti yi di dox ku gis bis mel ni gis jëmm ji nga xamante ni moo fi dajale mbooloo mi ngeen xam ni kon ku dogu la jaar ci diine jaar fa mag ña jaaroon moo tax Sëriñ Ibrahima di wax ni kon mu ngi koy gërëm lool di ko ñaanal lool ci bis bi mu dem ba egg foo xamante ni njortam weesu na fa ndax moo koy wax ni maanaam moom ambassadeur la ci palaas bi comme ni man ngi nekkoo woon ay ambassadeur ci palaas yi ñu nekkoon mu teg ci nag ay ndénkaane yoo xamante ni moom la bëgg a dénk mbooloo mi ndax suñu maam Cheikh Ahmad al bu dama dafa am ndénkaane lu am solo lu mu defoon ñu tuddee ko wasaaya Cheikh Ahmad al Bekkaay bu dama boo demee ba ci biir sëñ bi da cee juqi ay ndénkaane yi nga xamanteni ni ñoo nekk ci jataay bi muy fi cheikh bi di waxee ya bunayya man qanaa bima qassama allahu lahu mata ganiyan mooy mo ngi dénk njaboot gi di dénk mbooloo mi nit ñi nañu doyloo ci li ñu suñu borom dénk ndax seen maam nee na képp koo xamante ni doyloowul li nga xamante ni moom la ko yàlla dénk mu nekk ci loxoom day génn àdduna fekk moo ngi ñàkk wa man lam yarda bi ma xassama allahu lahu maata faqiran képp koo xamante ni li la yàlla dénk doyloo ko da booy génn àdduna faqir ngay doon waye beneen bi bi ci gëna doy war moy la dogolu yalla yi neena na ñu koy nangu ndax suñu maam ci Ahmadul Bekaay nee na képp koo Malam ni nangu dogalu neena yow tuumaal nga yalla ci ay dogalam man lam yarda bima xasama allah lahu faqad ittahama allahu fi qadaihi yàlla ay dogalam dañ koy nangu moo tax mu dénkuñu loolu beneen bi mooy nee na mbokk yi njaboot gi moo ngi leen di dénk ragal yàlla ndax seen maam si ahmadul bekkaay moo doon wax aleykum bi taqwallah nee na na maa ngi leen xiir di leen ñaax ci ragal yàlla ndax ragal yàlla mooy échelle bi xamante ni ku ci yéeg rek da ngay mucc alaykum bi taqwallahi fa innaha sababu kullu fatxin wa sullamu allazi yartaqi bihi ila kullu najaa kon képp koo xamante ni tey bëgg nga mucc adduna ak allaxira da ngay ragal yàlla seen maam moo ko wax si ahmadul bekkaay bu dama moo tax sëriñ ibrahima jukki woon loolu maanaam di ko fàttali njaboot gi xam ni seeni maam li ñu wax bëri na lool buñ ci tegee buñ ci tegewoo rek dañuy mucc demoon na ba benn téere bu mu bind muy benn risaala bu mu tuddee risaalatun fii zinatin nisa maanaam jigéen lu mu war a soloo jigéen ni mu war a mel dëgg-dëgg ak comportement bu ñu demee ba adduna maanaam fasaad yàq tasaaroo ak lu bon tasaaroo ci adduna nee na na nga daw jugee ci dëkk boobu dem ci beneen dëkk moo tax si Ahmadul Bekkaay doon wax ni maanaam képp koo xamante ni yaa ngi yore sa diine nekk ci benn place boo xamante ni nit ñi ñoom la sonal nee na na nga gàddaay dem ci beneen dëkk kon seri ibrahim manam lim ñu sasom wala li nga xamanteni ni defañoon na pour ñu wax ko sax ëpp na loolu waaye sant gi lepp ñong ko jaglel ki nga xamanteni mom mo moo bis bi di Serigne amad kon ñoo ngi jéggalu kaddu yi bu baaxa baax Serigne ibrahim nee na ngi jéggu kaddu yi ñu nit ñi nga xamanteni ay ndaw lañu di jottale kaddu gi ñong koy jéggalu ndax suñuy kilifa lañu togal te it dañu sori ci ñun am lu ñu def ci ñun moo tax toog ak yéen dafa am bayti yoo xamante ni moom daanele in in qultu shukran fa shukri lan yuwaffiyakum حقا سعيتم فكان السعي مشكورا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله